jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci jàmbaar news mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne focus jëm ci le 24 novembre fii ci arène nationale combat royal bi dox ci diggante Modou Lo ak Siteu Tarkinda bi mbokk yi nag jàmbaar production dañu commencé dol ni na ñu ngi jukki jukki ñaari ñaari xale wala ñaari mag yoo xamante ne ku ci nekk daa bëgg a doon xale muy Cheikh Niang ak borom peel bi borom peel bi nag yéen ñëpp xam ngeen ko ci Cheikh Niang laay njëkkee nuyu la wax la lan moo la indi ci arène nationale bi Cheikh maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waaw ansu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ji li maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu assurance borom jàmbara ah. di nuyu sunu caméraman bi bu baax a baax a baax di siyaar ñëpp di nuyu bébé Elton sama adversaire di ziar Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñu nekk ci kaso yi yàlla na leen yàlla génne ñu tëdd ci hôpital yi na leen yàlla yëkkati ban dem ak jàmm suñu waay dawli yàlla na leen yàlla yërëm di wax ne waaw tey li ma fi indi mooy sama diggante ak bébé mhm. ndax maa ngi dégg fu nekk mu wër fa mhm. jox leen ma Cheikh Niang ma rey ko gas ko suul ko ci digg làmb ji mhm. dama ne woon sax du ma bëreeg man loolu laa xoon dama ne kii dof la quoi non parce nit nan ma jox nit ma rey ko ci laam moom yéenay rey nit laam incha allahu rabbi bu bis ba ma waaw moo tax waaw mooy yéenay rey nit ji ku dee kay xam nga ne ku sedd kay dee nga ah pour dóor ba mu dee la waaw incha allahu rabbi moom damaa bëgg nag léegi ñim naroon na rey ñëpp ma wàcce leen moom dóor ko ba mu dee ma jël peel yi suul ko fii moom wax di jeex peel bi munu cee bi munu cee mucc moom peel bi moo tax ma defar ko du nuy Sénégal ñëpp di leen wax borom peel bi am na komba maag Cheikh Niang moom laa nar njëkk a dóor ci stade bi mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wàqe ba mu xóot neuf mètres ci suuf ma suul hmm. waaw foofu la ma sénégalais yi di xaar di nuyu waa jàmbaar ñëpp nag parce que combat bi ñëpp ko bëggoon waa jàmbaar décroché ko kon amuñu seen fay hmm. ñoom ñoo fi ne waa jàmbaar ñoo fi ne hmm. waaw léegi bébé Elton bu jàmbaar na ko ñëpp dégg bébé Elton bu jàmbaar. ah léegi mbëru waaw mbëru maa maa mbëru jàmbaar. assurance waaw di nuyu assurance. di nuyu Papa Sow. waaw Mansour Ba ñëpp. maa leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax combat bi taxaw na sama combat ak Cheikh Niang taxaw na maa ngi woo Jaspera beeg ñëpp. mais peel bi piel bi daa mel ni Moussa Gauthie mu ngi mu ngi doog a ñëw première fois peel bi war a ñëw nag. 36 peel laa defar. 36 peel laa defal. léegi yi ci des yëpp dañ leen di jël maye leen peel yi moom maçon yi lañ koy jox ñu liggéey ci ne de 36 la defar léegi premier peel bi bi mu njëkk a jël jël ma man maay sowee ñëpp. maa koy dóor ba mu faatu ma jël peel boobu suul ko ci yeneen 36 euh, euh, euh, yi 30 35 yi ma jël ko séddale ko maçon yi waa di wax ne xam nga ku nekk nag ragal péete day xañ a wërsëg mm. moom dafa woowaa jàmbaar mm. te man it dëgg-dëgg sama premier sortie bi ma def fii ba ñëpp xam maa di ma tëggaat mm. mi ngi nekk waa Alburax Events parce que non man maay mbëru Alburax Events man man mii maay déglu ma rek maay waa ah, naa ko man maay mbëru Alburax Events parce que waa waa Sowetaas non xalil di toogal di waa Sowetaas wax laa bëgg a wax assira ma ne xamul waa Sowetaas waa jàmbaar waa Alburax Events waa waa assira kii assurance assurance ma leen tudde waaw assurance. waaw yow damaa kontaan ci waaw ndax dangay ngay assuré. te nit kuy assuré rek. jar naa tee waaye waa waa Albourakh Events. waaw xam nga lu ma wax. waa Sowetaas. Sowetaas hmm. xam nga Sowetaas mooy. waa jàmbaar laa bëgg a dégg fii. ñoo fi ne ñoo yëpp ñoo décroché combat bi ma Cheikh Niang. waaw jëlal bébé Elton. mu jëndal la billet yëpp nga rey ko. man sama papa Mansour Ba moo ne ma demal jël Cheikh Niang. léegi nag. Mansour Ba ak maa ngi leen di woo ñëpp képp ku nekk Alburaax FM maa ngi lay woo maay mbëru jàmbaar waa jàmbaar ñoo fi ne combat bi ñu ko bëggoon bëri na combat bi ñu ko bëggoon bëri na Aziz waa jàmbaar ñoo ko débloqué yéen a sowee réew mépp déggoo li ma la wax waa jàmbaar ñoo fi ne ñoo fi ne man maay mbëru jàmbaar wallahi jili jili man maay mbëru jàmbaar waaw sawaay dina jënd billet yëpp nee na ma demal jël ko waa jàmbaar dina jënd billet yëpp sama papa eh, père ba dina jënd billet yëpp baay dina jënd billet yëpp ba dina jënd billet yëpp déggoo waa waa jili waa ma ko du dóor fii ba suul ko lu ma la wax di bu ko gëm ko dóor kii xaw ma nag est-ce que ma ne kii xaw ma damaa kii xaw ma ku ne ko jëlal Cheikh Niang qualité ma mën a daan nekkul ci Cheikh Niang qualité bu lay reyee fi nekk dama ni da lay rey qualité amul doole ju ma mën a daan amul doole ju ma résister maa ko mën maa ko ëpp doole dama koy daan far fos déggoo li ma la dama ni nii lay doxee nii dama ni daa kaname bu arbitre soufflé nga ñëw ko dóoree faax ko mu defee dama ne bu ma ko la ca xamal ko mu jaaxaan kii loolu ma la yow su ma ko dóoree kan la dóor mu daan ah, da koo dóor ñu ànd daanu yow yaa soxor yaa soxor. na ko ñëpp indi yaa soxor. dama ni <laughs> dama ni seen mënut a mucc ci peel bi. gaa yi koy waa Sénégal loolu la ñuy xaar ci man waa Sénégal loolu la ñuy xaar ci man seen ñang dinaa ko dóor fii ba mu dee ma jël sama peel bu ndaw bi suul ko man maay mbëru jàmbaar maay mbëru jàmbaar maa ngi nii mbërum Alburaax FM sa ngi nii loo loolu moom maax la ko tey jii waaw mbëru Modou Lo mbëru jàmbaar mbëru père ba ngi nii père ba sama papa maa ngi koy woo ci combat bi neen dina jënd bee eh, yëpp déglu ma it sama rakk tar ki ndaay waaw xam nga Siteu maa ko yar sama rakk la dama ko daan Siteu mook sama rakk doon ànd Modou Lo dina ko dóor ba mu dee ma xaaj sama peel yi jox ma ne yéen du ngeen suur kenn peel yi peel yëpp la ñuy 36 peel laa indi ci làmb ji xaaj xaaj 36 peel yi mun loo laajee xaaj bi jël xaaj bi su ma dóoree Cheikh Niang ba mu dee ci làmb ji man maa koy sulal sam bopp Cheikh mun loo bu dóoree Siteu ba mu dee man maa suul mun loo ñëw jullee ko la roi des arènes jullee Siteu fii bu ko dóoree ba mu dee Modou Lo bu dóoree Siteu ba mu dee. man maa suul moom mu ñëw jullee ko. ñu dem ñoo yor peel yi ñoo yor saret waa jàmbaar ñoo fi ne te képp kuy liggéey peel ngay yor. a ma yaay sama mag fii jàmbaar ñoo fi ne. Siteu nee na ma yaay sama mag. maa ko mën maa ko bu doole. waaw. kii daa ben mbeur mo am Sénégal muy bébé Elton moy mbeuru jambar waaw ben mbeuru moteur ñoo fi ne moy wa jambar eh dama ni ben structure ñoo fi ne. kon de lamb ji mbër amatul. man 4 mètre 50 la mesurer sama loxo bi 3 mètre 95 di mënta mu ci pel bi. dina ko dóor ba nga dé ci wax na ba xew. dina ko door nak ba mu fay ba mu fay. waaw yow ay door rek fay ki ay dóor akoy fay. ndax ab dof xamut yàlla waaye xam na bi yar maa la ëpp doole maa la mën dof xamut na bi yar dama lay daan far sos kii dama koy daan far dama koy kii kii damaa mën a daan yow sama gëm-gëm dépassé na pour daan Cheikh xam bu ma daan barki li ma gis lay bëri nii ànd daanu ànd daanu daanu maa la mën maa la ëpp doole bu ma la ñaasee nga abal ma victoire bi ba at bi suuflee nga xam benn promoteur moo fi am muy waa jàmbaar ma ne man benn mbër am ci réew mi waaw benn roi moo fi am muy Modou Lo. waaw roi gi moom Modou la yàlla dogal nangu la. waa loolu moom ñëpp a ko nangul àdduna bépp a nangu ne mooy roi des arènes. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla. waaye dama ne la. waaw Albourakh Events petit roi des arènes. ñi nga xam maay roi des arènes mbëri yi. yow roi des arènes mbëri ndaw yi maay seen roi des arènes. mooy roi des arènes mbëri mag yi. bul maa la mën maa la huit combats bii mooy neuf. quatre victoires trois défaites benn machine nil kii dinaa ko. yow eh, kii la tapé quatre quatre eh, eh, kii tapé quatre victoire am de. lii la am lii la am. cinq ko déglu ma donc may déglu lim bëri cinq combat la bëri. quatre défaites benn victoire boo xam ne daa ànd ak waa di daanu da koo doon nu ànd daan. yow yaay neuvième bi te fii laa la suul loolu mënoo koo dindi maa la ëpp doole maa la dàq bëri maa la ëpp doole. saaga saaga yi mu nekk ci làmb ji saaga mbëri kii wala saaga nit ñi lay def gullu buuj la gullu buuj kii gullu buuj la Cheikh Niang gullu buuj la gullu buuj la booy laal muy daanu xof mu daanu xool mu daanu boo indee peel bi sax mu daanu boo taxabalee mu jaaxaan boo àccee mu tëdd kii peel bi moom duñ bëree temps bu moom dama lay rey ba pare jël ko nangu ko duñ bëree lu yàgg maa kii bu dëggalee boppam lii muy wax lii muy scientifique nii bu ko dëggalee barke yonent bi duñ bëree lu yàgg ne buñ suuflee ma dox sa kii maa koy njëkk a dóor. yow mi bu ma ko dóoree day daanu. loolu moom maa ko wax. kii xam na mu baax. kii wax Seydina Mohamed loxoom yi lu mu mën a daaneel amu kii dóor ñu daanu. déggoo li ma la dix li nga doon dóor su ma ko limee du ma fi jóg. barke maam Seex Ibra Fall dix laa du. Eh, barke ak bébé Elton bokkul saa naa ren naa Bébé Elton maa la gën a gëm sama bopp maa la gën a capable 2012 laa judd kii bu arbitre soufflé fii ma suuf ma suul ko fii dama ni bu arbitre soufflé ma suul ko fii waaw Bébé Elton di taaga bu arbitre soufflé ma suul ko fii 2012 laa judd moom moom mooy sama maam mooy sama maam ci làmb 77 man bokkuma booy yi nga xam ne mooy loolu moom nangu naan kiyam bu yàgg licence am dañ ko war a nangu gaa ah, ah, yi ko ah, arrangé dama ni mais moom 2012 laa juddu. ba muy ambulant waaw man waxuma waxi bëri mom da daan ambulant ci marché yi. daaw ambulant yalla yàlla la yalla man man déggoo la 2019 la dugg ci lamb 2010 boo ko laajee rek di nga xam ne mag loo doon jaay yow bi ngay ambulant man naa lépp moo fi sàcc laay bañ. 77 moo fi sàcc laay bañ. moo tax may la mag nga. déggoo li ma la dama ni. 70 2012 laa juddu. 2024 bi laa am samay 13 ans. Cheikh Niang mi bu at bi soufflé ma taxalikoog moom fii. Ah, benn mbër moo am Sénégal bi bébé Elton. dama ni 2012 laa juddu. non waxtaan day am. ay dama koy déglu parce que barki yonent bi. بالله كي ما هم من على لدو من بوخما بوي يا خملي دن لين دي ماي ساس ني لين دي ريزيدي يو دو بوي واي دما لا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي ساس يا ماي jëli xamal duma dama koy daan jëli kii barke yonent bi mo kii xoolal kii jëli barke Serigne Saliou Mbacké jëli kii yàqu dama koy duma dama koy daan kii daa 4 mètre 50 la lekk rek nag lay def sama loxo bi 3 mètre 50 na loxo day lekk rek 9 ans déggoo li ma la judd 2012 kii dinaa ko rey ci estade bi jël sama pelle bi sul fii laa lay gas suul jëru dire dangaa la rey Allahu akbar dangaa barke yàlla benn mbër moo am Sénégal muy bébé Elton benn promoteur moo am Sénégal muy waa jàmbaar yéen a yéen a génn yeneen daje yooyu waaw damaa bëgg mhm. nga teel ñu cee woo ñu teel a présenté ndax sama jabar da ciy génne woy woo xam ne. Mm. xam nga waaw xam nga moom dafa génne Elton ñëw na Elton ñëw na dina fi rey mbër na di saaga. te moom ñëw na dina fi rey ay mbër di jàpp la jàkka ci kii kii kii. boo naan ki muy fenn. borom peel bi ñëw na dina ko yóbbu kii duma ko yóbbu du rey kenn duma ko yóbbu ndax maa koy rey. cegi cegi rëng. Elton ñëw na. Elton na. Elton ñëw na dina suul fii Cheikh Niang. pare li ma lay xamal mooy. barke yonent bi dinaa ko dóor. kii suuli ci moom lay wax sama jabar déggoo li ma la wax xanaa. nee naa la woy woy woy ma daan woyal. mi ngi génne single bi. single bi léemu génn. may rey ponkal yu mel nii. waaw woo woy lay woyaat. kii moom xajuma ci moom kii li ñu boole mooy xamal lu ma naqari man damaa bëgg a sowe waa Sénégal mais kii wërgu wër mbër yi laa bëgg a sowe ak amateur saaga na ndey ba ñëpp sonn ay saaga ndey lay nekk ci dëkk bi mbër yëpp saaga na leen kaasal kaasalal sa bopp so soxna si na tos fii. non loolu am na bu mu la woyoon de xaw ma Cheikh Niang bul bëree bul bëree toogal. lamb ji neex na bàyyi xam ne loolu démb bool jaan boo boo daanoo li may wax yaay léegi nag fii xamal lu muy wax. loolu démb la na léegi xamal la moo xew. borom peel bi ñëw na dina fi ray ay mbër. doore Elton ñëw na lii moom. Elton ñëw na ndajem jàmbur lu fekk fekk. xool ko wiiw taal kii dinaa ko rey wiiw <laughs> ah. bu neex la maa ngi kontaan waa jàmbaar bu baax. waaye sant waa jàmbaar bu baax. parce que combat bi ñi ko bëggoon bëri na. Cheikh Niang champion la sunu grand la. Mhm. moo jiitu ci làmb eh, eh, eh, waaw léegi may ma waaw moo ma may chance maa ngi koy sant bu baax mhm. di ko gërëm mhm. parce que maanaam combat bi ñu ko bëggoon bëri na mais gàcce ngàllaama waa jàmbaar amuñu seen fay génne nañ xaalis bu bëri fay ñu macha allah maa ngi sant waa jàmbaar bu baax di leen gërëm di sant Papa di sant Demba assurance sama doomu ndey man maa bërëm waa jàmbaar maa ngi sant Modou sama idole combat bi moom laa koy bëreel Modou Lo damaa bëgg mu jënd bee yëpp waaw ak sama papa père ba Mansour ba maa ngi koy woo ci combat bi combat bi sama papa père ba laa koy bëreel di woo waa Guédiawaye ñëpp nag képp ku kuy bégee bébé Elton maa lay woo ci komba bi di leen wax seen mbër am na combat ci combat euh, Modou Lo ak Siteu maa ngi ciy woo ñëpp incha ci kattanu yàlla dinaa ñëw indi état bu woo koŋ bëri lu doy waar xeex daan jël bu rëy suul Cheikh Niang ci stade bi. incha allah waaw maa ngi maa ngi ziar waa jàmbaar di wax ne comme li ñu def nii. kontaan nañ ci di nuyu assurance moom tamit sonn na ci affaire yi wax dëgg yàlla dox ci lim ci war dox ñu koy ñaanal jàmm di nuyu Papa Sow moom bëre woon nañu sama waay la moo Modou Lo bëre nañu non Papa Sow moom daanu ma Modou Lo rek a ma daan mais Papa Sow moom wax dëgg yàlla <laughs> maa ko daan waaw mais nag maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di wax ne jàmbaar production daal mm-hmm. ñu ngi leen di ziar di wax ne comme li ma waxoon rek mm-hmm. tey jii bu la gër lekkee alam na ko gërëm a cooy tey waa Alburax Events mm-hmm. bu ma demee ba tabax kër muy jóg di ko yëkkati ñoom ñoo tax ku ci mel ni Baye ak Aziz yaa ngi dégg bu baax ñooñu maa ngi kontaan ci ñoom parce que ñooñu maa leen tudde assurance nee nañ ma combat bii sunu loxo du ci jóg dinañ la ci jàppale combat bi diggante ñaar ñi laa ko teg ci seen loxo ñett ñii sax booy ñaar sama rakk nee na ma yëpp dinaa ko jënd Balla Gaye nee na ma dinaa la jàppale bu baax ci combat bi man la. Modou Lo nee na dina ba jënd combat bi. kii bàyyi na combat bi ba déggoo li ma la dama ne. Modou Lo moo tax ma moo ma utal combat bi. combat bi Modou Lo moo tax ma am ko. Modou Lo nee na ma dina ma jëndal bee yëpp. père Mansour Mansour Ba nee na dina ma jëndal bee yëpp. d'accord nañ waaw na ma may wax na ma bare dama bàyyi maa nee na dina ma jëndal bee yëpp. waaw moom moo wax ay waxam. maa ngi woo Balla Gaye dégg combat yaa ngi dégg bu baax dama ne Balla Gaye. suñu mbër la Balla Gaye combat bi mi sa loxo teg naa ko sa loxo yaag sama rakk ji tarkindaa bi Siteu nga xam ne bu ñëwee fii Modou am na problème booy bi maa ko yor te xam naa ko Modou Lo am nga problème Siteu dina la duma ba nga ne waalee Njaay mu jëndal ma jéeyi ma daan Siteu daan ñu ànd ak tarkindaa yi ñibbi jàmm gën loolu moom maa la ko di ci woo Bombardier sama sama sama mag sama lépp moom it moom it nee na ma dinaa jëli ci biir yi yaa ngi dégg bu baax di woo Talla Gueye bëgg Talla Gueye bu sali muur laa bëgg suñ combat ak moom waa jàmbaar tëgg muur sama rek Amet Buur Bata ma koy wooyee Amet Dieng Amet Dieng ñu koy wax Saliou Dieng Saliou jee sama rek maa ngi koy woo ci bis bi moom it na ma dinaa jënd billet yëpp maa ngi woo di woo Zal Ndiir bu Pàkku Lambaay nee na ma ñun waa paak bi kenn du des maay jënd billet yëpp kon di woo Zo Mbaye bu kër Mousso. nee na ma dinaa jënd bii moog duut say mbay. di woo jaaykati yàpp yi nekk cinquante yëpp ak sama mbokki géwél yëpp. Mm-hmm. lamb jii du doon di yomb ñoom ñëpp maa ngi leen di woo. incha allah waaw duut say mbay bu père Amadou Mbay di woo waa yëpp nag. Ah, may sa sant yàlla boutique maa ngi koy woo. combat bi combat am la Ousmane Ñeex borom Massé Dior. combat bi sa combat la Lat Diop borom DG Lona combat bi sa combat waaw ma may ma may ma. may ma Modou Lo combat bi waaw waaw waaw léegi combat bi waaw may ma may ma wax ba pare may ma wax ba pare may ma wax ba pare ma ne may ma rek may ma. <laughs> waaw may ma wax ba pare may ma wax ba pare joxal joxal jiili jiili teel waaw lii mooy ndam li gis nga fokkati naa ko nii lay demee léegi <laughs> nangu na jox na ma boppam léegi di woo waa Diourbel. nga xam ne fa laa juddoo ñoom it nee na ñoom ñëpp dinañ dagg bi yi ñëw fekk si ma am ay supporter fa laa juddoo sama yaay fa am ay supporter kër sëñ Mbaye Sarr laa dëkk kër sëñ Mbaye Sarr dama fa am ay supporter man àdduna ñoo may topp kon gars yi ñëw wuy suñu ñu jënd bi yi ñëw fii fees stade bi ah li may wax rek mooy waa Sowetaas Baye Ndiaye Aziz Ndiaye mm. Sowetaas jëndal leen ma billet yi ma rey bébé Elton nit ñi nëppalu parce que dof bu mel nii boo ko rey ci làmb ji na fay indi ay inconvénients yeneen i rey la ci làmb ji maa ngi woo maa ngi woo mooy sa sant yàlla boutique maa ngi koy woo bu baax ci combat bi kooku suma papa la na waaw na ma jëndal bee yëpp waa maa ngi sant waa may sa sant yàlla bu di ma maa sant Lat Diop maa ngi woo Lat Diop bu baax ay dara waa bépp ministre bu nekk Guédiawaye maa lay woo ci combat bi di woo sama papa euh, Thierno Ndom Ba maa ngi ko waaw maa ngi woo euh, Pape Demba Biteye directeur Sénélec waaw ma ma maa ngi woo <laughs> Pape Demba Biteye eh, ma woo de Pape Demba Biteye sama xarit la waaw maa ngi woo Mansour Ba maa ngi woo waa Géejawaay ñëpp bépp autorité bépp autorité bépp autorité bu nekk géejawaay maa ngi lay woo ci combat bi seen doom seen mbër bébé Elton am na combat waaw. jaloore waa ASC jaloore yaatu Habib Kane Habib kan nee na ma dinaa mobiliser Thiès gépp foofu sama dëkk ASC yi ñu waay Cheikh Niang noppi ma ne yaa war a <laughs> yow mi di nga xam ne géwél dinaa ko dóor moom tey ci stade danaa la nangu peeli suul la ci fii yow laa yow laa nar a njëkk a suul ci yow dama lay rey yow ci man ngay dëppee maa la mën déggoo la maa la ëpp la gën a woon tubaab bi la bi ne woon tubaab bi boo njëkkee woon ci man doo laal keneen kii nag njëkkee na ci man dootul laal keneen maa la mën maa la ëpp doole borom peel bi ñëw na dina fi rey ay borom peel bi ñëw na ko rey waa waa ñëpp maa la ñëw ñëpp maa ngi leen di woo Pikine gi waa kër Boy Niang ma la eh, waa adduna laay woo adduna man ma woo adduna man adduna ñoo may bëggee adduna ñooy bëggee borom peel nangul yàlla dogal 24 novembre arène nationale barke yuntu bi arbitre souffle na ko Cheikh euh, Niang na ko mu daanu jël na peelam bi na ko la ilaha kii am na doole kii dama koy rek. billahi dama koy rey kii nii barke yonent bi dama koy rey xoolal kii lim tegal ne billahi dama koy rey laa ko doon doon kii rey naa yow ban pied ngay teg pied gauche ah pied gauche kii bu mu xam lu may teg très bien kii tey